El Hadji Malick di communicateur dëkk Tëngéej waaw ñu lépp si yàlla la ñu jógee fa la ñu delluwaat fi may jëkkee rek mooy sant yàlla jul si kilifa ñëpp mooy Seydina Muhammad coon bi ñuy xamante maak moom c'est à 1972 boobu duggagul Baobab man ma nekk si Oza et Oz moom muy ànd ak laay mbuub ndax teg la bu jubee ndef la jutoo tax coon fu ñu ko mën a dégg nañu delloo njukkal laay mbuub coon am jom laay formé ko tabarkàlla waaye li gën am solo si coon mi nga xam ne tey bàyyam la fekk si mooy am kóllëre ñu def rek benn témoignage coon ngi si biir dama koy fekki moo ma ne sama soxna kii ne dafa ragal yàlla barka Nabul Mustafa témoignage boobu la def si ki nga xam ne mooy kine kinne it ne ma El Hadj Malick ko mu ne ma man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa direct mu ne ku am diine am lislaam moom mi li ñu seede si moom rek doy na mooy am na diine am na lislaam ku effacé woon la bugaan nag yu mel ni si amee yàlla ki muy dëkk lu muy jëkkër jëkkëram moo seede ne soxnaam yërëblam na ko si wàllu liggéeyam ak si famille ak ak lépp tey nag dañoo ñàkk lu metti tabarkàlla kon coon bi mu fekk si di wéy juróom yàlla na yàlla yokk leeram yàlla xar ko àjjana waaye nag lu am te rafet am lu woon ñaaw tey kuy artiste si réew mi teew nga coon sek dem na dem na waaye ñi fi bàyyi ginnaaw ku mel ni Youssou Ndour Ismaïla Lo te tabaarkàlla mm-hmm. Fallou Galas ñoom ñëpp te lu am te rafet amul ñaaw na kon daal senegal benn gaal la boo nekkee si gaal bul ñaan sa ëmb waaye naga nga ñaan yàlla gaal gi mucc te moom i dem na dootul ñëwati waaye ñun ñëpp kenn du rëcc ñëppay dem kon bésu tey bi rek war naa mën a tax ñun ñëpp ñu delluwaat si yàlla te tàppiwaat xol yi tabaarkàlla jéem ba rafetal andi allahumma salli ala sayyidina euh, ñàkk bu euh, moom mi natu xale bu baax la woon am yar lool disponible am teggin bëgg borom këram jàppale ko bu baax soutenir man hamna naa ci lu bari ndax weeru koor gu jot gis ngeen ñu fay demal ay plateau te lu ci bari moo koy coordonné derrière te kenn du ko gis bu lay jox xaalis sax da koy ndax discrétion ko fonk borom këram bi ñuy mujj jokkoo daaw la téléphone mu wax ma damaa bëgg a pégal sama sëriñ te xam ni ko Muhammad moy li ko gënal ma bëggoon anniversaire am manoon naa woo ku nekk mais yéen ñi tagg yenant bi laa soxla yéen ñi waxtaane diine ñëw leen ngeen bégalal ma sama sëriñ mu tolloo woon ak weeru octobre defe naa duggaat nañ ci defe naa quatorze la suma juumul ci daaw ñu ñëw taxawal ko ko fële ca cité kër góor gi euh, loolu di lu rëy luy wane ni kon ku bëggoon diine la euh, ku disponible la woon boo ko woowee sax jotoo da ngay gis mu rappelé la wax la li ko teree jël téléphone am te loolu lépp respect la euh, ku bàyyi woon xel bis bii ko dal tey te nekk suñu kanam ñun ñëpp bàyyi woon na xel kon nu ñaanal di marsawu jullit fi di marsawu këru diine yëpp ndax amoon relation bu rafet ak këru yep don ta ku nekk xam na taalibe la woon waaye këru diine yëpp la duggante ku yaru nekkoon ku disponible ñu ngi marsawu sunu rak Bougane Gueye dani mi nga xam borom Euh, fonkoon ko lool ma xam tey li muy ressentir ci tristesse di ko ressentir ci consternation di ressentir ci ay douleur la plupart des Sénégal ressentir kon yalna yalla yàlla ko aljana defal ko defal ko mande. am nañ ci nag rafet njot ndax boroom këram gërëm na ko te yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax moom mi gën mat ay wax ci nit ñi gën ci ñëpp nekkoon ki gane àdduna ci wi yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni iza sallatil mar'atu wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ataat zawjaha mu ni fu boobaa daxalatil janna mu ni jigéen su fekkee mu ngi julli waxtu yu juróom di woor weeru koor ni mu ware sàmm boppam ba du ci la tam na ci ay ndigalam yonent bi ni kooku faw mu tabbi aljanna kon rafet na nu njort ci borom ndax boroom këram gërëm na ko tey ba tuur ay xéewal jooy yombul kon nagwaneni wane ni soxna moomi yàll na yàlla wanale ko ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax weer wi mu di chehru rabiul awal mooy weeru gàmm te matagul jeexagul weer wi waaw xam ngeen ni ci ñaar fukki fan yi ci la ñuy toll ji mu liggéey dafa dem ba dugg ci saan bi ñu ko jullee ba noppi lañ ko jébbal boroomam te loolu boroom xam-xam yëpp maase nañu ni ci yawmul juma lay dugg wala laylatul juma ci guddik aljuma hmm. kon première guddeem guddi aljuma nañ ci rafet njort hmm. bi ci des tam wéy juróom bu jigéen gërëm na ko yóbbante na ay kàddu wax ni xale bu ko noppal la woon ku am yar la woon ku am teggin ku ko doon jàppale kon nag ko sa yaay gërëm sa baay eh, gërëm la hmm. ah, sa boroom kër gërëm la ñi nga daan séqal ñëpp ci wàllu liggéey itam gërëm la nga boole woon ci disponibilité yaru discrète courtoise disciplinée intelligente teey loolu yëpp boole woon na ko yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmel yàlla na yàlla yaatal bàmmel bi defal ko ci yërmande man rarement laay ñëw ci jotaay yu mel nii waaye li tax ma ñëw ci personnellement man ak moom waaw parce que yar bi ma wanoon respect bi ma wanoon musuma sàllalu sama ndijaay rek la daan wax fonk ma lool di ma woo di ma nemmeeku su weeru koor jotee mu laaj ma lu ma xat-xat damay wax dimbali nu nga boole ñu ci kon ñu ngi koy ñaanal ñaan la jullit am mhm. waaw yii nag ñu koy bàyyi xel mhm. parce que avertissement la mhm. ñu koy bàyyi xel parce que signe yu fort la parce que ki dem ndaw la quarante deux ans xale la xale bu ndaw la quatre vingt en un xale bu ndaw tuuti la kon nag ñuy bàyyi xel yii xam ni mu ngi sunu kanam yàlla dina jël mag dina jël ndaw dina jël góor dina jël jigéen dina jël ku baax dina jël ku bon dina jël borom titre jël baadoo la kon dee rek a fi nekk dee mooy dëgg moo tax am na bindkatu nasaraan bu mag buñ daan wax la comtesse de Noailles

wax na ni fal mawtu aqrabu wa ëddaha wa amar wa baxtatan yaati wa ma anhu mafar nee na dee moo gën a jommalaate ci mbir gën a jige doomu aadama bi te ko nee na gën cee jommalaate waaye gën cee mën a bett doomu aadama parce que surprise la ndax mu doon prévoir euh, anniversaire bu borom këram kon surprendre na ko mm. doonte tawat ji bett nañu bari waaye surprise la kon dee day ñëw ci mbetteel dafa weex tam deelu metti la ndax nekk ki nit jékki-jékki ku la gisati dalaa fekk si wara a fanaani ci bërëb boo xam day noor sa kaw nawet sa kaw di taw ci sa kaw mm-hmm. loo fa jëf ci ñaanal ci doom bi rek yàlla xare ko ci barke Seydina lan moo la gën a ci jëmm ji fi jógee waaye dara ñaan ko yàlla rek tey du bis wax jëmm ji fi jógee doon na koo xamante ko bu baax amaana waaw waaw waaw bon maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax baax di leen jaale li ñu bokk ñëpp parce que

Euh, doxalinam jëfinam vraiment boo ko gisee da ngay xam ni xel dal na surtout ak ñi nga xam ne ñëpp tey gunge si nañ ko ci. Hmm. Euh, ci këram bu mujj. waaw hmm. ah, donc vraiment xel dal na. Hmm. ñu ngi la koy jaalewaat bu baax. maa ngeen koy maa ngi leen koy jaale yéen itam. tey euh, ki fi bàyyee ko. waaw lu metti rek. lu metti te lay dal rek. dalati suñu kaw. di ko sant yàlla. di ko sant yàlla ndax. ku xool gën gi mbindeef nga xam ni daanaka presque laata mu koy def suul na waa këram yëpp te terewul woon moo doon gën gi mbindeef da nga koy sante yàlla lii rek wane na que ni àdduna moom mbaax rek a fi am solo soxna moom e, nit ku baax jigéen ju ku sell ku jullite ku mënoon def lu baax tey di wax ndànk di def ndànk bu gars yi daan petit petit daan sabi ne nit lépp dal rek te mënoon naa réew ndax yi mu boole waaye dafa boole woon lépp teg ci yoon nii bisam bii sedd yàlla bu ko cat yàlla na xibbee àjjana ci barke Serigne Saliou jërë jëf ñu gis euh, ab nakar daal di euh, ngeen yeewoo nakar si nga xamante ni moom mooy moom mi daal di géey bi déggee loolu la woon waaw àdduna ni la waaw rek di nga ñam dee ñu koy ne yàlla na ko gënal fii ko yàlla xaare àjjana yi gën a kawe na jërëjëf naka nga affaire yi dañ la wax la ko jërëjëf man maa ngi koy doog a yëg hmm. waaw jërëjëf jërëjëf ah, ah politique ak loo mën a jël nag Sénégal moo ko bolé, li la politique di am la divergence di am dafa gën a dafa gën a dëgër te loolu bu ñu ko fàtte te loolu politique su ko defarul waru ko yàq damay wax ne les sociétés humaines dañu inventer trois P pour lutter contre la violence sous toutes ses formes dañu inventer la prison pour lutter contre la violence dañu inventer euh, la, la, le pardon pour lutter contre la violence dañu inventer la politique pour lutter contre la violence dee leen fàttali taskatu xabaar yi dee leen fàttali woy politique yi ne politique bi ñu koy inventé pour faire violence la c'était pour policier la société ngi donc police politique bu mënul saafara conflit ci ci askan rek politique ba amatul njëriñ buñ démé ba politique di générer conflit moy nañu taxaw nak def taxaw seetlu politique dafa ñëw pour

bi nga xamante ni tey moom moo tax tey ji ñëpp daje fi Sénégal yëpp fi daje tey quel que soit boor boo mën a nekk beneen bi it mooy ñi mu doon jëflanteel di liggéey ak moom ko ci dajal tey am na daf lay wax ne la c'est une très am âme qui nit ku baax moom moo dem nit ku yiw moo dem te loolu ki ci jiitu te seede ko teew gën cee yàlla ñëpp muy borom këram seede na ko yàlla na ko sunu borom defal euh, yërmande te xaare ko ci àjjana gën a kawe ci barkeb euh, alquranu karim waaye barkeb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak weeram bu tedd bi nga xam ci lañ nekk jërëjëf kooku di Pape Djibril Fall gis ngeen ko noonu waxtaan bu rafet ak soxna ngeen jëf. Thank you. ah yo waaw baax na ci kala may ma ñëw euh, je pense que loolu daa amoon daal loo xam ne vraiment ñun en tant que baay dañ leen di ñaanal ñu gën a suudewu gën a modeste gën a yemale gën a moytu parce que dañ nekk ci jamono bu naqari kat baaxul làmmiñ baaxul seytaane baaxul yàlla nañ ci yàlla musal